alors ñu dugg ci waxtaan bi comme ni mu ko waxee muy les 100 jours yi nga xamante ne ce nouveau régime def na ko muy Bassirou Diomaye son excellence ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ñu diggee woon lu bëri jàkkaarloog sénégalais yi ba le 24 mars bi ñu génn 2024 ñu jox leen li nga xamante ne moom mooy le pouvoir au premier tour une première fois dans l'histoire du Sénégal 100 jours yi ku ci nekk daal di ci yee bi waaye nag kii di Badara Gueye Badara Gadiaga ak Moussa mbay Moussa Mbaye depuis Touba di activiste daal dina ciy joxe xalaat xalaatam ndax nag ñoo bokku Sénégal 100 jours yi ku ci nekk ak ni mu ko gisee vidéo bi su baxé ñu déglu ji Badara Gadiaga ak Moussa Mbaye depuis Touba. man par exemple nous avons un premier ministre très bavard très bavard 100 jours sans var moi je trouve que le premier ministre Ousmane Sonko est très bavard 100 jours sans var hmm. la primature poste bi pour man poste de résultat du poste d'exhibition la primature c'est un poste poste de résultat le du poste d'exhibition donc je pense que Ousmane Sonko le temps de la parole opposition bi moko le temps du travail et de l'action moom il faut mou arrêter d'être un opposant au pouvoir Mou quitter posture opposant bi exercer l'état et la plénitude fonction plénitude fonction Moi lay tere nga naan tapis rouge bi dama ciy dox ba mu neex ma yooyu c'est élémentaire c'est pas pour kilifa Ousmane Sonko doit être ci temps travail bi opposition bi

ni ma constaté noonu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Moussa Mbaye la Touba ñu wax ne nguurug Sénégal gii di Bassirou jomaay fay jëte def na téeméeri fan ci réew may laaj sénégalais tey lan moo soppeeku seen dund ndax li ëppoon ci seen yaakaar tey dafa jëmoon ci wàllu mbay pour mu mun a développer réew mi pour mu mun a soqale réew mi tey mën nañ tey la réew mi gën a sooxe parce que jël nañ benn ministre boo xam ne moo yor wàllu mbay mi bopp bi feesut xamul dara ab tiktoker la senap wër di senap liggéey buróom satalu cee toog baykat yépp a ngi jooy tey sëngéem du engrais du jiw bu baax du dara luñ leen jox secteur informel bi tey ambilamaan yi torox complètement bu ma leen di tudd sa damay triste ci situation yu metti yi ñuy dund te ñoo yor Sénégal ñooñu ana opposition bi ngeen war a bokk ndey bokk taxaw contrôle ñii depuis ñu jox Ousmane sonk réew mi ak Bassirou Diomaye ba léegi ñu ngi tëdd hôtel Asalaay ñu jëm ci situation bu métti kenn ku nekk xam na ne ren ndox mi dana bari jéemu ñoo génn ci seen hôtel yooyu ñu tëdd régler problème mu sénégalais yi am kër ndey ci bàyyi ci réew mi am fi ay kër nangu ñoo dem seen kër yi hôtel palais de la république nekk ne nanguñ faa fanaan dem tëdd hôtel Asalaay di génne ay million yu bari di ko fay ci àlli réew mi ma ne yéen opposition bi jóg leen jóg jot na Sénégal dafa sëngeem tey lan lañ soppi ci réew mi du ceeb du diw du suukar du faj lenn dong laa gëm ne soppi nañ ko ci réew mi mooy ñi doon ànd ak ñoom doon saaga suñu kilifa yi di insulter suñu kilifa yi kenn ku nekk utal nañ la poste jox la ko pour bégale la ko mu ngi noonu ñoo déggandoo ñaari vidéo yi bu ci njëkk mooy Badara Gadiaga moom ni mu jàppee 100 jours yi mooy 100 jours yoo xamante ne Ousmane Sonko il est bavard alors que waru ko ak li nga xamante ne moom mooy sans var moom noonu la jàngatee les 100 jours au pouvoir Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko beneen bi ci topp mooy Moussa Mbaye depuis Touba moom nag moom aussi d'après lu mu wax nee na defaguñu dara Tange mu ngi noonu ñoo yow en tant que citoyen sénégalais en tant que porteur de voix en tant que ku ñuy bàyyi xel saa su waxee noo jàngatee les 100 jours d'après ñaari vidéo nous ñu seetaan. waa xam nga Sénégal depuis le 24 mars 2024 dafa dugg ci troisième alternance mhm. soo déggee alternance maanaam mooy changement dañu changé njiitu réew mhm. maanaam ki nga xamante ne avons doon jiite réew mi mais nak pour man changement bi nga xamanteni yalla yàlla nako Sénégalais le 24 mars 2024 signal bu fort la bo xamanteni yalla daf ko yónnee au peuple sénégalais. Mhm. pourquoi je dis que yalla daf ko yónnee au peuple sénégalais parce que yalla daf ñu may xol pour ñu sentir may ñu xel pour ñu xalaat. Mhm. amana sa xol mën na la may nga def dara mais sa xel waru la may nga def ko parce que xel du jëriñ lu dul moy l'intelligence lu ñu wutaleeg ay bayima mais ñun Sénégal dañu làmboo lenn loo xamante ni ci askanu Sénégal rek laa ko gis ci monde entier bi ma pratiqué yépp mhm. ci bépp xeet demal Mali demal Burkina demal Mauritanie demal Niger demal Zambie demal Cameroun demal Angola demal Gabon demal France demal Allemagne demal euh, itali demal Suède demal Norvège demal Amérique ci cinquante deux états yi demal euh, en Asie muy Chine di Japon mhm. muy euh, Pakistan di Bangladesh Nous avons dëkk que xamante ni émotion la de L'émotion, émotion L'émotion, maanaam qui lan mooy faj ak xol utilisons ñuy utiliser suñu xel Les gis nga sénégalais depuis 1960 ba tey jii que le Sénégal dépassé la France mais Dubaï dañ dépassé parce qu'on on est doué d'expérience on est doué d'expertise on est doué de compétences, on est doué de savoir mais dañu dëkk ci benn dëkk boo xamante ni xawma lan mooy suñu problème ñun sénégalais. Hmm. on ne réfléchit pas on agit ba def toj-toj soo ko di xalaat. merci parce que tey troisième alternance bi dama jàpp ni que lenn la rek muy un signal fort boo xamante ni yàlla moo ko yónnee sa peuple gis yàlla dafa ne sabablul ma jàppale la. soo sababloo ci lu baax ma jàppale la ci lu baax nga sabablu ci lu bon ma jàppale la ci lu bon. ndaxte tey nit dina jóg am yéene bu bon ci moromu jullitam yàlla xam na ne que lii dama ko teree dama ko araamal jóg ne tànk bii may dox dama jox pour wuti sëriñ boo xamante ni dama bëgg a liggéey Zeyna pour mu dox wala mu yàqu wala mu torox yalla gis nako et pourtant su ko neexoon fi nga yëkëté tank bi mu bloqué ko mais dalay sétane ba nga eggale ko parce que lolu moy sa yéné da nga sabab lu def lu bon mais mi ngi lay xaar keroog yow mal xiyaam soo sabab lolu lu baax mu jox lolu lu baax comme ñun sénégalais nak suñu sukkundiko ci majorité 54,8% quatre bi ñu bëgg a la majorité man ma jappé ni ko le minime minorité ndaxte 54,8% quatre yooyu da nga koy génnee ci 4 millions d'électeurs ñi inscrire sen tour ci liste électeur yi ci 4 millions yoyu 3 millions 600 nangam ñoo ci dem wote gi ci 3 millions 600 nangam yoyu si la génné 54,8% bi tax Bassirou Diomaye Fay nek président la République le 24 mars 2024 amana matuñu 2 millions ci sénégalais yu fal Bassirou Diomaye Fay pour mu jité réew mi recensement bi INDS def barki demb ci rapport bi tollu nañu ci fukki millions ak juroom ñett muy 18 millions et plus tey soo ko xaymaa dindi ko ci moins de deux millions donc y millions yi nga xamante ne ñu ngi ci ñu faluñu Bassirou Diomaye Faye ànduñoo ak Bassirou Diomaye xëy na dañu abstinence war a toog mm-hmm. loolu nag tey ñi nga xamante ni ñoo téye seen bopp ba tey changement bi am muy troisième alternance générationnelle bi ni ko Olof Njaay di waxee ñax bu wow dina lakk ñax bu tooy tey ñax bu wow bi ñoom mooy cinquante quatre virgule huit pour cent bi ñax bu tooy bi mooy seize millions et plus yi nga xamante ni amuñu carte voté wuñu wala inscrire wuñu wala amuñu choix tey cinquante quatre virgule huit pour cent yooyu lakk na leen pour lan parce que tey ba Bassirou Diomaye Faye bi nekk ci bopp Sénégal mu doxal. Mhm. c'est pour tous les sénégalais. Mhm. mu ñàkk doxal c'est pour tous les sénégalais. tey su doon su doxalee pour cinquante quatre pour cent yi la ñoo ciy gis seen bopp su doxalul seize millions ñoo ci gisul seen bopp ñu jàpp sax ñi voté ñu ngi leen taxawal. mais je crois que perception bi ci am ci 100 jours yi nga xamanteni def nako ci bop réew mi ñu xeymako muy ñetti weer ak fukki fan. on est nag au Sénégal dañu teunku ci constitution ñu nekk ci république république bobu lan moko régir maanaam muy ay institution institution moy ay département yo xamanteni ñom ñoy ñooy rew Sénégal tay Bassirou Diomaye fay bi nekk président de la république dafa sukkandiku ci suñu constitution lu mu laaj bañu jox ko ko mu am 54 mu nekk président de la république. tey institution yooyu nekk fii ñu nekk ci benn réew boo xamante ni mën naa jàpp dañu am liberté d'expression parce que démocratie la ñuy dund dunduwuñu li nga xamante ni mooy régime dictatorial maanaam buur la maamam mooy buur moo fi nekkoon kii mooy doon li mu bëgg moom ngay def lu mu wax moom ngay wax nekku ci loon Badara Gadiaga def na diagnostic am ci 100 jours yi mais gis naa ni Badara Gadiaga bi mu defee ci 100 jours yi jubluwul ci ki ñi fal président de la république discours am daf ko accentué ci ki nga xamante ni président bi moo jël big daal di xaatim nommé ko par décret def ko premier ministre de la république du Sénégal fa la accentué bilan bi nga xamante ni mooy cent jours yi nga xamante ni def nañ ko fi loolu nag je crois que sénégalais yi dañ ko war a éviter mm. parce que tey ci boppu Sénégal Bassirou Diomaye fay la ñu fal le 2 avril moom moo taxaw ci kanamu conseil constitutionnel waat ci kanamu sénégalais yi que dina accomplir mission bi ci diiru juróomi at

kon donc motax mu xam sénégalais yi fan la len di jaar pour ñuy wax ci mom motax mu koy def mais sénégalais yi ñoo ko war jël multiplier ko par 0 xam na ni que c'est une personne sénégalais constitution bi may décret ki nga xamante sénégalais yi ñoo ko fal mu nommé ko mais ñun suñuy laaj résultat wala di laaj len na Bassirou fay lañ koy laaj mom lu mu def suñu yoon nekku ci. xam nga kan moo ko war a contrôler kii sénégalais yi fal muy président de la république Bassirou Diomaye su dee Bassirou Diomaye fay gis na moom li muy def neex na ko doy na ci na sénégalais yi wax ak Bassirou Diomaye fay bañ ko tudd bañ ko taas multiplier ko par zéro su waxtu voté jotee comme ni ñu fi folle woon ki fi ne woon ñi daal di koy teggi ñu ne ko biñ la dénkee gisuñu woon li ñu doy man nag ci cent jours yi xaaruma woon bilan ci Bassirou jomay fay mm-hmm. ku ko ci xaaroon tamit je crois que da ngay nax sa bopp ah oui 2021 la taxaw ci plateau yi bu ben sénégalais ñëméwul yëkëti kàddu tuddu turu ki nga xamante moy premier ministre bi tay jité won fi parti bi di Pastef mm-hmm. nekkoon leader bu arrogant leader bu xamul institution leader bu respecté wul ben institution ci Sénégal lu ko neex lay wax lu ko neex lay def sa yu ko bëggé wax mu wax ku ko neex lay défier te ku ko tudd mu jël ay ñooñam teg leen ci réseaux sociaux yi ñu ne saagal leen ma ndeyu diw yàqal leen ma deram agressé leen ko wala menacé leen ko wala xoxokol man boobu laa jël sama responsabilité taxawal peuple sénégalais di leen naan diw mii kat newuma mënul doon président de la république Sénégal mais li muy wax bés bu doonee président de la république du Sénégal mënu ko jëfee bi ma ci njëkk a tàmbale mooy bi mu taxawee ne sénégalais yi am naa solution buy régler jafe-jafe Sénégal. am naa solution boo xamante ni bés bu ma yoree boppu réew mi lépp luy jafe-jafe ci Sénégal jëm ci wàllu dund wàllu lekk wàllu location wàllu gaz wàllu tukki wàllu xëy am naa ko te bind naa ko def naa ko ci sama téere bi tuddee naa ko la solution solution nag mooy lan mooy ku feebar lan moo lay métti sa bopp soo demee docteur bi ne la Doliprane bii la ñu créé pour bopp buy métti mhm. ma ne leen ku leen wax ni que am na solution pour defar état waxu leen dëgg état solution du ko faire mécanisme de faire état demal États-Unis mécanisme de faire état demal Europe mécanisme de faire état Quand tey su ba egsi fii ñooñu bëgg ko gëm ñoom lay noppal parce que Tay su ñuy wax li muy wax man dama jàpp ni que tey Badara Gadiaga dafa am lu mu signé cent jours du régime de Bassirou Diomaye Faye cent var pour kan premier ministre Manako de ne ko da nga juum deux var egg na foofu. xam nga cent jours yi. Hmm. cent jours yi. Hmm. journée bu nekk ñaata la du vingt quatre heures. Ah. une heure de temps bu nekk benn vaar day génn bés bu nekk vingt quatre vaar mooy génn. nga multiplier ko par cent mu jox la deux mille quatre cent vaar. deux mille quatre cent vaar yooyu nekk fii ma xamal ne que des na yeneen quarante mille huit cent vaar yoo xamante ni moo ñuy yóbbu ci trois cent soixante cinq jours at bi multiplier par cinq kon vaar yi des na. 2400 var gënë gum 600 jours dessé nañu 48300 var at bi 365 jours 365 jours nga multiplions ko par 5 résultat bu mu lay jox nga ko par 24 var ndax te bëss bu nek 24 var dina gënë xam nga lu indi lool hmm. moy badar que limu wax légui xam nga néna il est trop bavard le premier ministre hmm. professeur Justin Ndiaye wax na ko nee na ministre bi gën a yomb ci àdduna mooy ministre boo xamante ni soo nekkee opposition la mooy ministre la parole soo waddee sa làmmiñ da ngay wax rek te Olof njaay neen na ki bëgg a jiite réew am ki fi nekk kooku xam nga ni du mës a gis lu baax ki fi nekk li mu def xam lu ko waral. Hmm. parce que bés bu waxee ah ki fi nekk def na lii def na lii yow mi population bi di voté da nga naan comme baax na kay nañu continuer ak moom. on a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne mais da ngay gis li baax nga di koy manipuler soppi ko def ko pour qu'ils ko ci les yi nga malheureusement Sénégal dafa bare ay analphabètes ñu mais ñu fi ëpp nit mën naa ñàkk am xam xam di utiliser xelam waxna ko sank ci sama début parce que duñu utiliser suñu xel xol lañuy démé mhm. mais ñi ci ëpp utiliser ñu ci bëri dañuy jógee ci ay village ñëw ci réewum taax au lieu ñu xool ni que réew mi naka lay doxee ñu mais dañuy dem ak engouement kon tey je crois que man Bassirou xaaruma woon ci moom bilan xaaruma ci moom résultat ndaxte mënu ko def xam tax mënu ko def parce que ñoom ba ñuy ñëw dafa am lu ñu jaay sénégalais yi mooy rupture rupture mooy lan mooy changement mm. sénégalais yi tamit bëggoon changement ñu ne li fi nekkoon doy na dañu bëgg a ñam lu bees ñu indil leen lu bees loolu lu bees loolu ndekete amuñu woon dara luñ leen jaay xam nga projet lañ leen jaayoon projet bi ci teg ko ci lan solution ñaata nit ñoo dee ci projet bi cinquante six personnes ñaata kër ay kilifa lañ fi taal ñaata ambulance lañ fi taal ñaata doomu aadama ñoo ñàkk seen loxo ñii laago ñaata doomu aadama ñoo dem au chômage ci lañ leen jaay mais ñooñu tey suñu amoon xel est-ce que dinañu faatu ci lu mel noonu bërki démb ba ña ca faatu seen ay rakk ñoo génn taxaw ne projet bi ngeen ñu jaayal moo tax suñu ay rakk faatu war ngeen ñu kenn waru leen yéen a war seen bopp parce que man kenn waruma démb su ngeen jëloon seen xel di ma déglu da ngeen naan Tange Tandian bi moo nekk ci dëgg dangeen di jóg soutenir Tange Tandian mais da ngeen bàyyee Tange Tandian bàyyee Abdou Nguer bàyyee Moustapha Diakhaté bàyyee Mati Trois Pommes ak ñi nga xamante ni ñooy saaga ngeen croiser le seen bras ba ku ci xamoon Abdou Nguer sax su ko bëggee seet si dafay ragal jógee Abdou Nguer lu wax lan parce que ñii di saaga yi suñu gisee xaritu Abdou Nguer laa mën nañ ma laal mooy wane ni que gëmuñu suñu bopp est-ce que xam nga loolu. Mm-hmm. kon tey Bassirou Diomaye fay man leen laay jàpp ci moom en tant que président la République du Sénégal. élu mm-hmm. au suffrage universel direct. Mm-hmm. par les Sénégalais constitution bi daganal ko teg na ay jéego. teg na ay jéego ci 100 jours te loolu laa ko doon xaar orientation laa doon xaar ci moom fan lay yóbbu Sénégal fi mu yóbbu Sénégal nag won na ko nit ñi parce que mesure yu mu ci njëkk jël bi may njëkk a tànn bi mu njëkk jël ci premier conseil des ministres mooy prérogative yokk ay pouvoir am délégué ko kii di premier ministre loolu la njëkk a laam-laame dafa bëgga jël ci ay pouvoir yi nga xamante ni ñun constitution Sénégal moom lañ ko jox Bassirou Diomaye Faye joxuñu ko ma Samba joxuñu ko ma demb nee na li ngeen ma jox dafa bare dama ko bëgg a dénk kenn koo xamante ni mooy sama premier ministre am na ci sañ-sañ am na ci doole waaye loolu du ci wax da nga koy xaatim bind ko jox ko secretariat général ñu promulgué ko publier ko journal officiel sénégalais yi la faloon kat xam na ni liñ la dénkoon yow yaa jël sa sañ-sañ daal di koy dénk diw dénkuñu ko ñaari salaamaaleykum ci wax la yam bi bah offense au premier ministre ñu ne offense au premier ministre fi am ñu président daf ko délégué ay pouvoir juge que xam nañu lolu ci la yam parce que xam premier ministre amagul pouvoir buñ ko parce que pour ñu déléguer, ko dañ koy ko publier ko askan bi yépp xam comme nomination conseil des ministres. kon ba tay ji ñi ngi doflo askan bi bi mu joge fofu lan la ci tegat ar sur le littoral jéego la tek mais jéego bi baxul xam sa jéego baxul bala ngay jël ben mesure da ngay xol mesure bu may jël peser le pour et le contre suma ko jëlé lan lay jural sama Sénégal lan la jural Sénégal lool ñi doon xëy ci santé yi ñu xëy ay chômage lañ dem ñi doon indi sen alal bi def ci port bi xaliss ñi ngi bloqué wu port génneetuñu ko yóbbu na Sénégal ci situation bu catastrophique kon teg na jéego boo xamante mi ngi bu Sénégal vers l'arrière te mesure bobu mu jël jarul won mu koy wax dañu jël Descos tek ko fi pour lepp lo xamanteni construction bu irrégulier la koku dal di koy saytu kon Descos lan la fay jëli donc ñom dañu nekkaatoon ci populisme waxte xamuñu won pouvoir populisme lañu xamone tay nak mëno xam dara nga xey xey ñu duggal ci benn kër nga bëgg xam lolu donc ci lolu lañ doon continuer. ñu jógee foofu mu dem mbuurkaat ba mu jógee mbuurkaat ba léegi ban suivi nga ci gis boo xamante ni am na ci est-ce que dem mbuurkaat wax fa affaire foncier nangam ñuy reyante seen biir kii sàcc na kii sàccul kii am na cent terrain ki am na deux cent terrain te dara leeru leen est-ce que tax na ndaw yi dematul jël suñu gaal gi est-ce que tax na dund bi yomb est-ce que tax na nit ki lu mu bëgg am moom que est que tax na xaalis am ci senegal Sénégal tey la gën a ndóol de 1960 à nos jours. gisoo ñaar dërëm buy circuler ci réew mi ñu jógee foofu ñu ñëw ci ay contrat pétrolier ay renégociation licence de pêche ak ay affaire semence ak agriculture lan la changé dëkk bi kon Bassirou Diomaye Faye ci 100 jours bi teg na ay jéego jéego yu mu teg noonu nag mooy fausse route fausse route boobu nag lenn ma ko ko indil man ci sama xalaat bu gàtt mm-hmm. am na ambition am na yéene mm-hmm. mais xëy na dafa am lu des ci moom muy engagement ak détermination nit bés bu la yàlla tànnee ba teg la ci bopp réew bul xool ni ko naa moo nekkoon fi wala nangam sàngam yàlla day jël wërsëgu doomu aadama jaar la ko ci beneen loxo ba nga nekk fa. Mm-hmm. ragal na ku ko nee dafa wor. Mm. xëy na mi ngi ànd ak ki nga xamante ni mi ngi koy gasal pax amaana ba Bassirou Diomaye Faye tey su wéetoon moom en nommé conscience d'accordul ak ki mu nome premier ministre li muy doxalee. mais gis na ni populisme bi amoon ak ñi ko toppoon xëy na su deful noonu ñu ne war na mu doon benn échec kii nag wax na ko ba Badara Gadiaga cent jours de bavardage professeur Justin nee na bavardage bu bare lan lay indi banalisation banalisation nag moo fi nekk ndaxte su ñu demee ba premier ministre taxaw grand théâtre dinaan tuddee tapis rouge bi may dox moo leen naq dinaa ci dox par la force mhm. donc damay jàpp ni kooku xamul luy institution mhm. lan mooy tapis su taxawee di menacer ay journalistes yi nga xamante ni tey ñoom ñoo la tax nga am benn pouvoir egg si fii ba naan ku bindoon nangam bindaat ko ma set alors ko ki ko bindoon reprendre ko di continuer di ko bind te ñeme ko wax. je crois que loolu yàpp sa askan la ñàkk respect sa askan la. lenn laa ci constaté nag. Mhm. mooy ci 100 jours yi. am nañ ci benn remarque boo xamante ni pour la première fois Sénégal mi ngi am première ministre chef du gouvernement boo xamante ni moo gën a ñàkk respect ci àdduna bi. kenn respecté ko Amadou Ba jaar na fi. Euh, Sidiki Kaba jaar na fi Boun Abdallah Dionne yenn ayol fa suuf si kawam na fi Mimi Touré jaar na fi euh, Habib Thiam jaar na fi Mamadou Lamine Loum jaar na fi Mama Dior Boy jaar na fi Habib Thiam jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Macky Sall jaar na fi mais premier ministre da nga amone gëdd bo xamanteni institution ngay représenter mais tay fo dem ci réseaux sociaux yi yaa ngi gis premier ministre ñu ngi koy yak lu melni xamé suñu démé est ce que mës nga gis ben africain de la sous région malien guinéen ivoirien burkina def lifestyle du tuddu ben sénégalais tey su ñu demee tirer suñu ay Sénégal je crois que on nous a envoyé vers fi nga xamante ne tey l'inverse d'accord mais sous des cadres ouani dundu, wala yoko dundu, jappelle ni ko mënuñu ko parce que mënuñu ko parce que li ñu bañaloon démb Macky Sall moom lañ fi fekk crise économique bu am mondialement donc bañ koy dugal ci bopou askan bi tey ñi ngi comprendre lan langage de la vérité Moustapha Mbaye wax na waxu déguerpissement ambulant yi man je suis entièrement d'accord avec ñom ñoom su dee ci ñëw jeune ma mhm. bañ ci xuus donc cent jours yi lan laay jàpp mhm. Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci logique mhm. d'accord limu mu def mi ngi koy def xeyna nak nag kenn moo ko muy premier ministre am lenn laa koy ñaan na jël responsabilité d'accord euh, d'accord